sëñ bi est xam nga kii kan la. sa jëkkër la kii nag sa lan la. moom la yéen moom laa amee. non kii xaw ma ko. moom. dégg ma de. pour mu may ma sama baat. mu may la sa baat. waaw loolu wax la ngay nekk di wax nii. di chaud di tàng nànk nànk. mbokk yi xarit ci ñi seetaan gis ngeen ko nag yeneen seen bi émission tàng na show tey nag benn xale bu jigéen moo ñu woo am benn cas bu waar bu ñu bëgg expliquer sëñ bi na nga def. maa ngi si jàmm. noo tudd. man maa ngi tudd Cheikh Ndiaye. Cheikh Ndiaye sëñ bi na maa ngi fi rek soxna si. noo tudd. man Ibrahima laa tudd. Ibrahima Ndiaye. soxna si yow moom jaruñu lay laaj yow yaay kan ndaxte yow yaa waral émission bi sëñ bi est que xam nga kii kan la. non kii xaw ma ko. non kii sincèrement man xaw ma ko. xamoo ko non non. Hmm. mosoo a gisante. waaw sama jëkkër la. moom la ñu moom laa am ak doom. Mm-hmm. loolu day na waar kon lan waral nga woote waa émission. tàng show ñëw ci sess la sa biir wa dama wote won pour mom mi mu may ma sama baat. dégguma oh, de. pour mu may ma sama baat motax ma wote mu may la sa baat. yo la ngay nek di wax ni nank nank nank defal nank mbir yaangi commencé di show di tang nank nank señu nga ne. yo ñu nga. Ah, doy na waar sëñ bi na nga def. maa ngi fi rek soxna si. sëñ bi dégg nga xale bu jigéen bi lu mu wax neen dafa bëgg ñaan divorce ki nga xamante ne mooy borom këram loo am luy kàddu yoo ci sànni. li ma ci wax moom góor moom bu ko jigéen ñaanee divorce rek nag ko may daal. Mm. ndax tey dama ñëw fii pour jël si sama doom ak moom ñu dem dellu Europe. sa doom laa sama doom soxna si est-ce que nga ñoo leeral mbir moomu noonu nee na dafa am ak yow doom. waaw nee naa la moom mii laa am ak moom doom. Mm-hmm. kii sama borom kër la man maa bëgg mu may ma sama baat. lu waral nga bëgg mu may la sa baat sa borom kër. yow loolu sax wax nga. sëñ bi xaaral. non defal naa ko def. bi loolu kooku du doom sama doom la. booy wax damay a. def leen nànk def leen nànk émission la seetaan. non bi sëñ bi nee seetaan. sama doom bi sama doom sama doom mu ngi sama oto ma bàyyi. jàpp leen jub def leen nank ñi ñoo ñi sétane plateau la wax la kenn ku nekk sa temps su jot rek man dama lay jox cadeau gi nga nga wax de nga soxna ci yow nga ne ki ki ñi nga amal dom ki sa borom ko da nga koy ñaan li nga xamantene moy divorce ki ni fan ngeen xamanté ba nga amal mom dom ki amna ak mom dom depuis 7 ans mom xamna ko bu baax. légui nak dama bëgg nak mu mayma sama baat nak mom dafa ñëw pour ñun ñu dafa ñëw ànd ak doomam. est-ce que mën nga daal li ma la mën a waxal mooy moom mii wax dëgg neex yàlla sama borom kër la woon. Mhm. jotewuñu dara nag. Mhm. dóoruma saagawuma defuma lu bon. waaye moom wax dëgg neex yàlla loxoom jotul ginnaaw. te dama am samay besoin ay samay soxla. yu ma war a mën a lijjanti te nag moom maa dem dema dema dema dem ba xam ne man mënatuma def ak moom léegi nag samay baay sama baayu doom ñëw na wax dëgg neex yàlla te Europe la nekkoon ñëw na lijjanti nañu suñuy papier te maag sama sama moom mi sama jëkkër ji sa premier amour waaw sama premier amour la dañoo war a ànd génn réew mi voyager ñu ñaar da ngeen war a ànd génn réew mi moo tax nga bëgg laaj sa borom kër bi nga xamante ne moom nga nekkoon sept ans mu sa bàyyi doom bi bàyyi la fi woon ak sa doom yow nga bëgg sëñ bi mag may ma daaneel yow léegi sa bàyyi doom bi xamante ne kii ba nga amantee moo ak doom moom moo la moom moo la yoroon yow sa doom léegi nga bëgg a fee bàyyi ànd ak kii loolu dinañ ci waxtaan sëñ bi loo mën a la nga gisee kàddu yooyu noonu soxna si bàyyee ko hmm. gis nga kii. non du ma ko. ndaxte gis nga kii. tey la mën a wax Jakarta tey la mën a wax sama loxo jotul sama gannaaw. ndax démb. du xarit. du amul solo. xoolal du papa du kenn koo xamante nii tey ah ba mu nee ci problème taxaw na ko mu am ma jël ko. moom ak doomam sama doom sax laay wax. def ko ni sama doom. def ko ni sama doom def ko ni sama doom. kenn xamul ku ci wax. ma ne la sama doom la. daf leen nànk pendant sept ans juróom émission non daf leen nànk yaay baadoo la. sëñ bi daf leen nànk bu leen jaaxle sama émission ñëpp bàyyi la ñëpp bàyyi sa bàyyi ma ngir yow ak ñu dala deful yëpp. ñun waxi def ba deful yëpp yow loo fi def. sëñ bi yow sama si wuy leen ma wuy leen ma bu leen yàq émission bi ñi ndaxte nit ñi ñoo ngi ñuy seetaan nii en direct soxna bi bu leen émission bi ndaxte nit ñi ñoo ngi ñuy seetaan wax la joxante kenn ku nekk dina la dégg ku ku sa temps jot rek man dinaa la jox sëñ bi yow histoire bi nan la demee kon kii da ko ëmbaloon wala dafa am ak moom doom ci ginnaawam après yow nga yor ko foofu lañ yemoon continuer. kii Samba Boy la dafa def lu muy def ba pare naw. Eh, bàyyi ko ma ma nit ma topp ko ci bëgg-bëggam ak lépp li nga xam ne ngir yàlla rek a tax. Mhm. pendant juróom-ñaari at. déggoo li mu la wax mën na laa fay man laa fay li nga li nga def kii nga xam daf fi de responsabilité la def baadoole bi kay moo bu leen yàq émission bi yow si yow laa ñëw waa léegi si yow laa ñëw avant ay dépassé sëñ bi noppil soxlaw ma ko sëñ bi noppil ay saw yow dama wax cameraman léegi mën a lekk kon boog da da ngeen damay wax plateau cameraman bi léegi mu tek plateau ko da ngeen may deglu waxtan nañ suñu bëgge waxtan ñu am ci entente da ngeen di dégloonte kenn ku nekk du dëgg ak respect dégg ngeen sëñ bi na nga def. ma ngi leen di waa sank ba léegi ndax affaire bi mo perturbé sëñ bi dama bëgg nga nettali ma histoire ba mu demee. kii ba ba muy ba man ba may jóge fi di tukki man nax ni. ba may jóge fi di tukki man nax ni am ak nak mom tout tang nak amoon ëmbon na dal ma bàyyi ko fi dem mais xamul lu tax ma dem dal mhm. parce que mama yooyu mu ngi metti te su ko waxé ni dama fi tok rek wala damay dem rek aussi du du du lolu mané na jël sama décision dem. cela là ba ma ñibbisee quelque temps après ci la may wax mom amna jëkër jëkkër ma ne ko waa ah, la ñu def man bëgg gis sama doom ñu toog waxtaanaale ci lañ tok nak waxtaan gis sama doom ma ko pourquoi pas nga divorcer comme bëggatoo waa nga wax ko ko nga divorcer ma tak la ñu déllu Europe. gis na ni dal loolu ndax ni nga condition mala féké fekkee dal ko yo da nga revenir wat pour jëlaat sa doom. ah ah kii nu mu tëdd jëlaat sa responsable sa doom. en même ka nga bàyyi woon. non du sa soxna léegi ka nga bàyyi woon nga nekkaat ak moom. waaw lii daal moom fi indi. dëgg la soxna si yow la nga gisee loolu. waaw looloo ko fi indi. looloo ko fi indi moom daal nag man d'accord naa si loolu ànd naa si loolu moom nag comme que moom loxoom jotul ginnaawam te ay situation am demeewul noonu. moom te moo jëlu wax dëgg la yàlla situation demeewul noonu ndaxte maa ngi dégg waa ji naan Jakarta lay dawal yorul Jakarta lay dawal yoroo nañ ko loolu daal yoroo jakarta ngay dawal te mënatoo boo mënul da ngay man boo bëggee mën naa laa dundal ah, chèque lépp li nga xam ne war na mu wax ma ñaata la ma fay la moom li nga dépassé si doomam yëpp durant ces sept ans nag moom li nga dépassé si doomam nga wax ko ko euh, moom dina la non léegi xam na may jëndee man yow ah. yow chèque nu may jëndee léegi xam na la ñuy def yow da nga may wax lépp lu mu dépensé ma bindal ko chèque après fay blanche si dem mu dépassé ba dina ñaar motul million ndax moom simple jakarta ma non mais xam xol bi loolu la bëgg bàyyi bu demee ah. jigéen bu demee ba ñaan la sa baara a ah, may tamit nañ ko wax kat en daal leen laa mën a xam mooy wax ji doy na waar lool lool lool xale bi jigéen bi nee na moom dafa bëgg li nga xamante ne moom mooy divorce jëkkër ji instant yi dafa nekk ci choc instant yi moo ngi teg pression moom bëgg na instant yi xale bi jigéen bi du génn ci sëy bi ànd ak moom sëñ bi yow yaa ngi ci ñi nga xamante ne noonu lay massaw nag bu baax ndaxte metti na nga gis sa soxna Euh, di ànd ak ki nga xamante ne moom moo nekkoon premier amour am wax na ko waaye nekk ki nga xamante ne aussi moom mooy moom moo moom moo jur bàyyi doomam loolu yëpp nekk na li nga metti par la coup nii subitement rek nga dégg mu ne la divorce sëñ bi ñoo ngi lay massawu bu baax a baax a baax léegi soxna si yow nga ne yow divorce nga bëgg sëñ bi danga koy may baatam wala déet. doy na waar il est il est sur le stock. il est amul lenn na ko may baatam jël suñu bagage. ñu mhm. man suñu borom gis na lépp gëmm nelawul te fekkee na gannaaw ba lii nga ma jëndee alalu àdduna suñu borom gis na te ñu àtte. kon nañ koy bàyyi mu dem ak doom ji. kii sonn na daal grand. wuy ma may ko baatam c'est simple au commun bon jeu. na dem. Ah, kon mbokk yi kon mbokk yi ñoo ko dégg noonu nee na na dem soxna si sa borom ko dafa mel ni may na la sa baat ndaxte nee na nga dem. ah loolu neex na moom bu ñu mayee baat bi dinañ dem bu ñu ko mayul dinañ dem ndax ñun pare nañu te décidé nañu te dañuy dem wax dëgg neex yàlla yàlla defal ko jaam ak salaam. Hmm. ok waaw. léegi chèque yow dafa mel ne sax na si yow da ngay mën a kuy jaay. ndax loolu ne carrément. nan la bindal noo ko gisee noo ko gisee baax na en tout cas daal c'est pas trop tard boo bëggee mën ngaa wax léegi mën que defal la chèque nga ànd ak moom mu jeex moom ñu yoon ci li nga nekkee waaw kay ñu ngi sa yoon ah day na waar ñoo ko gisandoo il est sous le choc nag euh, mbokk yi xarit gis ngeen ko nag seen seen émission. tàng naa show. waaw gis ngeen ko waa ji instant yi nii jaax na la lool lool lool lool ndaxte xale bu jigéen bi dem na mu nekkoon soxnaam dem ànd ak ki nga xamante ne ne moom moo nekk première amouram mu nekk lu doy waar ñoo koy soog a gis sax mën naa ne am na waaye man moom lii maa koy soog a gis sama sama sama àdduna xale bu góor bi maa lay lay wu bu baax yéen ñi nga xamante ne yéen toog di suivre euh, bu leen fàtte mukk bés euh, kii li nga xamante ne ma abonné ak aussi ngeen bàyyi ñu commentaire wax ni nan ngeen gisee affaire bi nan ngeen ko déggee ndaxte nekk na li nga xamante ne luy doy waara a doy waar a doy waar kaw lii moom kaw teef la wax dëgg fa yàlla bàyyi leen ñu ci suuf rek commentaire yi ngir am solution ak waa ji kon boog sama gaañi ba beneen yoon seen émission. tàng naa show jaajëf massa